aywa mu ngi noonu daa mel ni le lion de Guédiawaye ngi noonu de. waaw mooy dugg si noonu. kooku mooy euh, Balla Gaye ki may seen naa mel ni màggatum jaan la. màggatum eh! eh! ja. ma ne ko mel ni màggatum jaan la àndal. la lion waaw arrière arrière arrière la ben arrière pousse waxtal vert télé dañ fay ndeysaan la lion de géejo waaye ngi nii Elhadj Diouf xool nga jësneer bi mu sol xool nga neer bi mu sol Matar jege si sama gars jege si xoolal jasneer bi mu sol. gaynde eh, gis nga li mu sol ci jasneer. Balla Gaye numéro 2 la Lion de Guédiawaye yaa dégg na muy def oto ba. Mohamed Ndaw Tyson waan Lamine koo koo bëgg da koy niru. idoolam la kooku buuse lañ koy wax. doomu ndeyu Papa Diouf. ak Marcel Diagne Omar a ngi wax ne na bismillah. waaw mais man de dama lay balu Babacar <laughs> mais dama laat a ah? si loo ne mbaam nga jàmm maa ngi am tawfeex macha allah fii man dama la naan sa abi ma rafet na ah, <laughs> man li may li may man sama question lenn la Balla Gaye numéro 2 tey bu la neexee nga ne championnat Angleterre wala bu Italie wala bu Espagne nañu amee calendrier di football jëmale saison Balla noonu la defaat defan nga ko ci kalaaf mais da nga koo tullantiwaat Bombardier booy Niang Gris Bordeaux lu tax loolu ak Eumeu Sène mi ñuy waaj mi ñuy dégg ci weew nag. waaw sant yàlla rek julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di sant sumay ñaari waajur di sant suma sëriñ sëriñ Bassirou Bara di ko ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk leeram tax ñu ci barkeem di ñaanal kilifa réew mi yëpp ñu yàgg fi loolu te wér di baalu ñëpp aax di baal ñëpp àq root na sumay saf ak sumay encadrement ñi nga xamante ñoom la àndal ñu kii ci mel ni liiru sama mag boucher alin donc vraiment di ci sant suma esaf ndax esaf bu baax lii lay jëriñ bu ci mel ni Abdoul Aziz Aly Ndiaye di ko sant di ko gërëm Baye Ndiaye ñu ngi ca Màkka Masata ñoom ñëpp maa ngi leen di ñaanal lépp luñ fa ñaan leen naa gë mooy li ma waxoon rek xaw ma joxe bopp ro ci làmmiñ maam esaf boo xamante ne dëgg yàlla kenn ku nekk nga nekk mbër ñaan nga yàlla am saf bu mel noonu loolu nag dama koy sant suñu borom buñ la tegee ci yoon ah, da tegu ci donc tey laa ci am preuve boo xëyaatee nga demaat kër garçon loolu laa ci amaat moo waral sama. Aziz moom moo leen boo xëyee rek nga demaat kër garçon. waaw moom mujjee woo léegi na ma fa toll. mu mel ni kon diggante Aziz ak Balla fi mu nekk nii maanaam wax ak jëf la. bu ne lii la nga ne nga ne nga def la mu wax. waaw lu mu waxul nag baaxul ci man. lu mu wax baax na ci man. ndax jëfe ndigal bàyyi tere rek a fi moo xam ci wàllu bu mu ci doon nag. boo xamee ne ñi la yor bëgg nañ la sopp nañ la te dañ ñett ci raay bu baax. kooku yoon la nga ànd ak ñoom jëfe ndigal bàyyi tere. mais lan mooy sa rapport ak le Don King de l'arène Gaston Mbengue ba mu def benn avance ñaari avance ba ñett ñetti avance lan mooy lan mooy lan mooy seen rapport. waaw da ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram ak wér ak wér-le ndax gudd fanam ci réew. Mm-hmm. am na solo am na njëriñ mm-hmm. rawatina jeunesse yi nga xamante ne ay xale lañu ku ci mel ni man mais boo nee jeune nag dañ yaakaar ne jeune mooy loolu waa donc voilà bëri na mm-hmm. di ko ñaanal gudd fan nag wér-gu-yaram ak wérle ba lépp li nga xamante ne bugg na ko ci làmb eh, yàlla na ko yàlla gën a kàttanal gën ko dolil mu koy def parce que bokk na ci li nga xamante ne day bëgg xel doomu aadama yi rawatina Sénégal lii nekk suñu cosaan mu ciy def ay jéego yàgg ci loolu ba mu demee aussi tamit manqué waat ne nag aussi tamit saa yu ma ñëwee maa fi mën maay borom yi. <laughs> Balla bi Gaston taxawoon. nga déggee ni moom la ñuy wax loo ci ban lan nga lan nga lan moo njëkk a ñëw sa xel. waaw aw ma ci aw ma ci sant bi ma ci maa ngi jégalu sax maanaam am naa ci satisfaire boo xamante ne vraiment nekk na lu ma neex. parce que ku xam combat Balla Gaye Gris Bordeaux nu mu neexee woon. Mm-hmm. nu mu méttee woon. donc yàlla dogal tey mu amee ci ci décision arbitre mhm. par avertissement mhm. nekkul woon lu ma gënal waaye ndam la rek mhm. donc nag lii nag bu soobee yàlla bëgg nañu mu leer nañu ne midi ak sondal donc vraiment. sa relation sa relation yi nga am ak Gris Bordeaux parce que gis nañ ni ngeen jaxasoo yéen ñaar. loolu amul dara lu muy yàq ci combat. non non Gris mbër la champion la man mbër la champion la. et ñu bokk nag lu ñuy xeex bokk àq ak yelleef ci doomu aadama ci lutteur. mu nekk président bi. lépp ci lu mu nekk nag dañ ko war a dooleel kàttanal ko ànd ak moom liggéey waaye nag lii nga xamante ne ñoo ko sekk xam na ne moom ni ma ko xamee man nu ma ko xamee noonu la xamante ne dañuy liggéey dañuy dóorante kurpañ dañuy bëre. est-ce que amoo lu la surprendre ñu doon xaar sa diggante ak ki nga xam ne mooy Eumeu Sène ñu jekk ba jàng ñu ni Gris Bordeaux est-ce que amoo lu la surprendre. non non non man jàpp naa ne fu nekk nii kon jàpp naa ne man sama xolu bopp. war naa mën a ba dix contrat wala ba quatre contrat wala cinq contrat donc vraiment li ma ci am daal mooy ah am na ñaan naa yàlla ak su may saf ñoom cinq contrat ah, Omar man li ma lay laaj mooy Gris bu dama laaj sax Ibakan mu ne Gris Bordeaux mësut a gis ku ko daan ci géew ba toog ci koom xaar photo seen diggante ku ne xam na ne décision la jeexan yaa ko wax sànq bii mën nañoo xaar photo am ci toog ci kaw nit a attends photo dina Hmm. dinaa toog ci moom la non déglu ko waaw wax nga ne am kon sama maam waaw fëri dus ba nam ko daan defee moom la daanee par ne attend photo bu soobee yàlla naa war ci kawam ne ko attend foto giri kon ci kaw giri bodo kon maanaam kenn mosulaa daan ba war sa kaw waaw bu soobee yàlla dinaa ko daan naa ci ñu da ngay bëgg a tukki pour préparer ji combat bi maa ngi fekk suma liggéey nañu ànd si biir